nuyu di leen ziar ñiy suivre Mon Sport ñu war a ñëwoon ci benn vidéo wax ci injustice bi nga xam man ñoo wax ne gisaguñ ku de gëlëm maanaam gisaguñ wax ci dara ci gëlëm sanam sénégal bi nga xam ne jël na ko bi maanaam félicité gul génnagul wax félicité ta stade ba gisaguñ fa démb comme nañ fa gisee valé rag rag yi mu ne ci kaw stade ba di wane ne moom première fante équipe Maroc malgré incident ak ñàkk dem nag du ko ci critiqué ndax euh, Maroc ak euh, Algérie dañoo xaw a jege te dafa gën a neex dem te Maroc ñëpp mooy Sénégal mais nag euh, ñi ngi xaar mu def benn continuité wala benn félicitation jëm ci équipe ñi wax ñi bëgg am bi ci compte YouTube bi ngeen bënn Remo Sport RMO Fpath Sport comme ni ko bindee ci YouTube bi comme logo bi ci YouTube bi moo fi nekk su ngeen demee ne gën a am contenu vidéo bi waaw Aliou Cissé nag ñi ngi xaar félicitation ndax moom lañu wax lépp moom la gannaaw bi nga xamee ne ibbi euh, euh, Sénégal ubbi goo xam ne mooy ubbi gu ñu jig maa Aliou Cissé mental fort bi yor depuis 2014 2015 bi mu ñëwee Sénégal ba léegi dem Coupe d'Afrique échoué quart de finale ñu fixe ko final mu dem Coupe d'Afrique 2019 dem final ñu fixe waat ko euh, jël coupe mu dem Coupe d'Afrique 2022 jël ko Coupe du Monde 2022 génn poulam mu dem Coupe du génn poulam da bu baax mental fort leen ci gëm sam Sénégal fu mu ñàkkee dañ koy fekk te bu ñëwee dem audace am gëm-gëm ne dafa war a dafa war a yegg ndax Moussa def li nga xam ne mooy abandonné te Moussa bàyyi li nga xam ne mooy place Korsom maanaam ni ñuy wax division ne mosu ko def kon loolu nag day wane ne moom Aliou Cissé coach la boo xam ne guddi daal franchement changé na li nga xam ne mooy football Sénégal bu baax a baax yóbbu ko ci beneen xar kanam boo xam ne euh, ñëpp mën na kaa xool ginnaaw bi mu nekkee li nga xam ne mooy capitaine 2002 bokkoon ci xale yi demoon final kon loolu nag nekk na benn image boo xam ne image bu magnifique la image boo xam ne ñëpp ñoo ko salué léegi nag man damay jàpp ne Aliou Cissé war nañ ko mën a may temps mu liggéey malgré am na lu ñu koy critiqué ay failles yu bëree bëri des fois ci wàllu classement des fois ci wàllu ni muy maanaam décision yaa ni mi ngi koy jël booy def bi day woo ay joueurs yoo xam ne bu ñëwee dañuy utiliser yooyu yëpp ay fayal yoo xam ne xëy na war nañ cee waxaat def ci ay débat yu gën a fort mais bugguma daal déggaat ay débat ñoo Aliou Cissé war naa jóge ci banc Sénégal bi loolu pour man nekkul loo xam ne moo gën ci Sénégal ndax Sénégal équipe boo xam ne dafa war a gañaawaat ay trophée trophée ndax pour man defaguñ dara ci football dañoo war a gën a yokk suñu jéego kon gars yi amoon nañ ngeen partagé merci beaucoup am ngeen jaajëf